Euh, saa su nekk ci wàllum actualité waaye nag bi yoon mu ab tiis goo xam ne rek dal na ci mboolem umag islamique bi laay wax rawatina ci yoonu murit euh, mbokk yi mu mel ni rek muy euh, bàyyi njaga Diop ñu bari xamoon ko ci wàll wi ci yoon wi waaye duñ ci sori lool dañuy bàyyeek sunu soppee bàyyi si la Baye Fall ñu ngi koy ziarat bu baax a baax ñu ngi jokk ak moom depuis Touba la ñuy wax ak moom nii bàyyi si la murit ñu ngi lay ziar salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay siyaare di am mbég de siyaare ki nu bokk noonu ñëpp ñu bokk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne mhm. seen bu man jébbaleen Cheikh Fall bëgg bu ëllëgee ñoo am aw lay mhm. di Serigne Ndiaga Diop Baye Fall taalibe Serigne Cheikh Fall Baye góor jaaran ci Serigne Moustapha Selwe mhm. wàcc si si Serigne Cheikh Touba Sam ñoom ñëpp ñu boot ci ginnaaw Serigne Cheikh Miguel Fall jàmbaar bi nga xam ne fi mu ma nga Ndakaaru kër Gaynde gi nga xam ni mooy këru lislaam yi nga xamante ni moo sës dëkk ci Colobane sëñ Seex Mbàkke liggéeyoon ko def ko dalab gan di fa dimbali bindee fi toog fa ku ko fa fekk sa aajo faju ci saayir ak baatin dagal la fa ay étudiant ñu dem jàngi dimbali la fa jaboot ju amul dépasse yóbbu la fa aw nit màkk ndax daa aman barke am wërsëg fa barke ba laxas ko ca wërsëgo di ko def ci bindee fi sëñ Moussa Ndiaye sëriñam di suñ sëriñ woo hmm. ko ko sama kër bëgg nga yeesalal a ko ndax day wàcc waayu gan te du ma sañoon ku fi dugg ku ne noo man toll kër gi man laa digal. dëgg la. fi mu ne nii ko fa falaa ko bàyyi bu ko jógee fii moom moom laa jëm di la xamal ni njëkk a maa ngi ñaan suñu boroom yàlla dekk fa baam seex. dëgg la. yàlla gis a Fall yàlla gis sëñ Seex Fall. min waay yàlla gis ak sëñ Moussa Binta Fall. min. Ah, ba ma ko xamee léegi ëpp na fan nga yaat. musuma koo xam ci lu dëgg. ak di ak di dox ci dëgg mhm. muy ko ñu bari sopp ngir xam-xamam ak dogoom te kat mbokkom momal momal maram jóobum Dakaaru mhm. ndaka jóob bokk na ci lébu yu war a moom da bu ko mhm. jox maam yàlla la ànd ak ndax daa mujj ñëw wala muy kaamil bi dëgg la dama wax ni Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy kaamilub yonante yi alxuraan ay kaamilub téere yi sëñ Bamba mooy ñu wutu yonante bi yëpp sëñ Bambaay seen kaamil waaye mbooleem kaamil bu ma sa topp góor yàlla duy ñu jamono seero faale si kaamil ñun Bamba ak war ma jëm ko jox ak lim ko jox jëmmam ak i doomam ak wërsëgam ak ñàkkam nit mës ta topp nit ngir yàlla joxe ko ja kon doo ko yi ma sa topp seero faale seen kaamil ak kaamil nag du am nawet jukki daa jage daa dajee ndege bu dee Baye Fall. kàddoom mm-hmm. ak xam-xamam ak xoolam mu jëfee ko Cheikh Fall liggéeyal Cheikh Fall ba tey liggéey rafet nañ ci moom njort. billaahi ma la nee xam naa njaga nag dëgg la ndax ba la maa tukki sax moo tax léeg-léeg ñu gëj a euh, gisee waaye daraam ump xam naa ne daal ku rafetu xol la. ku rafet jikko la. ku bëgg maam Cheikh la. ku wéetal sëñ Cheikh Fall Baye góor la sëñ Cheikh nag. yombu ta xam ndax daa judduwaale cëram ku la ni dimbali naa sëñ Cheikh Fall nee ko foo ko dimbalee sëñ Assane Fall daa andi cëram Cheikh daa andi cëram kenn mosu di fekk ci benn buntu ñuy nit ku leen jox dara ndax lu góor doon am di ko doxaale sëñ Cheikh Fall indaale na ko sëñ Assane Fall naa ko Cheikh Fall indaale na ko moom baaxee bokk ndey ak bàyyi lay ndeysaan Cheikh mu doomi Tafaal bi nga xam ne moo ma bàyyi ci kër gii ma nekk soxna Ndeye Fall mu sëñ Ablaye Fall ndax doomam sëñ mu doomi Tafaal doon ko denc moo nelawoon sama bàjjen nelaw góor yàlla yi ñëw ci wat bi mënumaa ñëw tey laa xëyee sama kër ñëw yendoog ñoom doomam yaa ngi ñuy toog di ñaan sunu borom yàlla na gisee suñ mu doomi tafaal amin yàlla na gisee suñ Ablaye Fall Ndar amin waay yàlla na gisee suñ Moussa Fall yàlla na gisee maam Cheikh Ibrahima Fall amin ndaga nag li nga xamal li mu nekkee dëgg la mooy bi nga woo fii na la wuyu ko dëgg la wallaahi kon suñ Moussa Fall soxna Ndeye Fall suñ mu doomi tafaal laa maa ngi toog ak njabootam ak xalifaam yu jigéen kon njaga mën naa ni daa jóge caw naaj dem ci kër wallahi wallahi xam nga seera maa wax waaw dama xam ne àddina ay tool la yow ma xeyaa bu dëkk la tool yi ku fi ñëw te doo sonn xalsam nga booy dem doo yóbbaale yóbbal hmm. fii day jeex te fee du jeex wallahi ñu doon ragal dee nag ak bëgg a dee seera faal da leen a gàgganti dama wax ne dee jaam la dekki jaam la munkir jaam la nakkir jaam la moo am ñeen di ragal a jaam ni bàyyi dëgg la yaa laanu ku ñuy bardaa ca bënn ga Ibrahima la kul dëgg la sab sedd li si jëlee ba lu sëñ Mbàkke ca maa yomb ban ko ci tàbbalee muy sawara sedd mbàkke mbàkke yi foofu lañ ko jëlee sawara li muy tàng tàng bu amul ndigal moo ko sedd ya kon bu ragal sawara bul bëgg àjjana ragal yàlla te liggéeyal sëñ Bàmba baa nga ragal yàlla te jàng ba xam jaamu ci yàlla ku jàng boo xamee jaamu ci yàlla ku man man boo amee liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh Fall nee na ko ñaan ñàkk soo jëndee am. ko jàng loo gis xam ko. moo liggéeyee suñu bàmb bu la gërëmee loo bëgg am ko. loo gis xam ko nag loo bëgg am ko moo ko gën. Hmm. liggéey suñu tubaab koy maye. dëgg la. ak julliwul wóorul sakul asaka ko ajul bu tàngee ni gujju te mooy lamp fall muy aboolu jaal muy babil muri di ña hmm. loolu ku mu ku ku ku mu ñëwul ndaw ak sëñ Bamba weggi doomam bëgg sëtam xamoo dara fa yàlla yaa may dégg. maa ngi la dégg. Moussa Ka nee na bi lamb si Bamba tëggee wàllu nga ma dem lamb Fall ñu laaj ma ne ku wàlliwul doo wàlliwu. te bu si Bamba wenn wàllu yi ñu ngi koo tàngamloo. Hmm. Macky Sall bu ne ministère yi laa ku tàggu lamb ak ñu ne ngaa bañ a dem. te ay diggante Macky Sall ak ministère yi. Hmm. waaw diggante sëñ Bamba ak wàllu yi raw na foofu. te ku ñu wàllu am na loo xam sëñ Bamba lu ñu tax boo nga wuy bu la santee nga def bu la teree nga bàyyi. bilaahi. suñu dëgg la nga xam yàlla sàkkaa saka tati mun ko ordon la mun yàlla jox mu war nu waaye cooxta doon wàllu wàllu bët la am xel la xam-xam la aw fit la am dox la am am la billaahi billaahi gis nga wàllu yu hmm. Cheikh Omar Fouti yi moo jëkk feeñal bu wàllu yu ci Sénégal moo wër sëñ Bamba di ko wër ba dem màkkatal mu karama tëdd nelaw ñu ko leer di ngay seet mooy wutu yonente bi waaye nañ ko màkkate gi màkkate ga te sawul jant la nekk yoon ko ñëw ba Mbàkke Bawol mu dugg kër Maam Mor Anta Sali Maam Mor romb ko mu ko sa ligg lii saxul ginnaaw yi du faral di métti mu ko mooy sama tawat mu ko du tawat borom jamono a jaati mooy riir jox ko téere ni ko boob ma ko joxal daray dem ab diir bu gàtt sëñ daama gane jamono ba ci juróom benn atam ak weer mm. ni ko Seex Omar Fuuti yi moo faranteeg yow wëllëre moo la jox téere bii séegam du nag baayam mbarok ko ñaanal ko war a woote seera faal ne deret du waajaa ngii keewu ñuy ñëw génn egsi na Cheikh Omar Fouti yi la gën a naw ci wàllu yi Sénégal ak Cheikh Ibrahima Fall ndax ci la déclaré sëñ ci waa téye wala arrêt bi la ilaha illallah dañ bi wàllu yi nag du wàllu yi wàllu yi sañ-sañ la bis bu rëy la xam-xam la mënure la tiitar la ab liggéey la teer la dëgg la wàllu yi Cheikh Ibrahima Fall ci sut la ilaha illallah xam nga tax moo ci sut li ah. yàlla nag ñëpp ku ko jëkk a gis yaa ko bët ñëpp la ilaha illallah Cheikh Ibrahima kooku kenn da nga koy nax da ngay nax baayam hmm. du kenn kenn du moom lay ndeysaan é eh, sëñ Abdoulaye waxal na sëñ mu dee tebal ne ko sa maam Cheikh Ibrahima Fall mi mel ni sa baay xamul ko indi àddina mun ko digi rek mun ko leen di saa baay àddina fi indi Cheikh Ibrahima Fall yàlla bëgg ku doon yonent bi ci sunna mu ni sëq ak leeram génn ko muy sëñ Tuba mhm. sëñ Tuba ni ko wéet naa lool liggéey bi bëgg naa ko ma ci jàppale sëñ Abdoulaye ne la yàlla ni sëq leeram sëñ Tuba ni ko suxaat rek muy Cheikh Ibra Fall ah, eh, sëñ saa bi dama wax ni ñaar kenn sëñ Tuba ak sama baay Cheikh Ibra Fall koo ci tudd te del agsi na mhm. nit ñi nag dama jàng ba xam te jaamuwul mbaam boo ñëwee Ndakaaru ostaa si jàng mhm. ba xam buñ jaamu yàlla ba am leer nu ñuy xamee sëñ Tuba lëndëm du xam leer leer du xam lëndëm billaahi koo tomb ci yàlla xam na lu sëñ Tuubaa tekki hmm. moo tax Cheikh mi ko jëkk a xam a ko moo gën a tekki ñëpp maa ngi toogal ci sëtam di ko sant suñu borom ndax kàddu yi ci wax ñu fekke man na maa yokk man na maa aar allahu akbar ma ñaan lii xew na génn réew mi bu ci suñu yoon nenun ku demagul yàlla boo woof bay dem ñu dem yàlla nag yàlla yéen foofu laa ko jëmale laa gaatal amin jërëjëf Baye Sylla waaw Eh, yow yow yow yow dañoo bëgg wax ma li ma la ko ni ma la ko waxee rek waaye fi ñu la fekk moo moo moo moo njëkk dal moo njëkk seet doxal. waaw. du fekk la ci keppaar ga nga xamante ni fa eh, seede ga ngay seede toogaat seen biir. xam nga ñi ma xam nga leen meññ. waaw. sëñ mu demee Tafal mi dàq na jàng ci réew mi. bokk ci a sell ba. Touba te sëñ Moustapha Fall meññ ko. Hmm. damaa wax ni Touba ñi man ci waar waaw mënuñu ci kaabil bi. kaamil bi mënulu ci waaye si mu demee taa man ci waaye te kenn mënu ko ci kaamil bi danaan jàngal xooy bu ragal yàlla ni sëñ Abdou Xaadir di liggéey sëñ Bàmba ni sëñ Abdou Laat ah, man la maa Bàmba ku ko gën mos a judd ce moom mujj la tudd Aminata la yaayam tudd Madina la dëkk nee naa ko ni nga nuroo Moustapha nit mos a judd ginnaaw Mohamed nuroo ko Mohamed moom ma du la tudd yaayam Aminata la tudd te Madina tu mu nawar la tudd laa ilaaha illallaah. man ngaa dégg loolu. dégg dégg. boo dugg almeeri Tuubaa ba jur Cheikh Rafaal. yaayam ngay fekk bu suunu yaayam rek fa mu këpp. mais ba xamal ni doom mën naa dem bàyyi bàyyi bàyyi mën naa dem bàyyi ko waaye kenn du tàggoog sa ndey. billaahi billaahi. si la say commerce la ku perte na yéen a perte loo. ku sa yaay tàllalu doo am. xamal nga ne loxol doom jotul bàyyi. déedéet cay lu ko day nangu joxoo lu ko may doo am dara wallaahi soxna Aminta ñang sëñ Massa ñang mi ko jur waaw te dina ci xabuloom maam Cheikh Rafal robb ko di ko teggi bu ñu yëkku ba Cheikh dëpp oh. maam Cheikh ne bi ma ñëwee tëneeful di mag jullee ñaar rakka koom ñaana ko daa hmm. ree ba ma gis sell laa ilaaha illallah wala lii la wala lii du sa maam Cheikh di sa faaw nga mel ni sëñ mu daminta dëgg la dëgg la ñii ma toogal nag soxna Ndeye mi ngeen jur sëñ Ablaye Fall la ko jur gërëme ko suñ mu demin ca. jërëjëf. soxna Ndeye moom moo dem àjjana ma ñëwoon di ko saa si nga woo ma fi ma wax la lii. sama aajo mën na cee fajoo. alhamdulilah. jërëjëf maa ngi sant si tey jërëjëf. di ñaan suñu borom mu defal nu kaaraange. amin amin amin defal nu mucc ak yokku bu baax. amin amin maa ngi si siyaare sëñ Fallou taawam. jërëjëf. sëñ Moustapha Mar rakam. Mm-hmm. dib taalibeem fonk ko ni mu fonk sëñ mu doomi te ngir bëgg a defar kër baayam. billaahi. baa xam ne ko xeeba sa taaw baay bu sa kër baay yàqoo yàqoo yàq. Ah, lu wér lu la. dégg nga wax ji. wallaahi. ku sa baay dem. Hmm. sa mag wuutu ko nga xeeba noonu ko dëgg dëgg wallaahi. topp ni mu gën la nag. dëgg la si la. yoon wi. Hmm. topp ci taxul doon gone de. bu doon loolu sëñ mu doomi du doon mag de. yaa may dégg. maa ngi lay dégg. topp na suñ mu Moussa Fall topp suñ Mor Talla topp suñ Ablaye Fall Ndar. topp weer yu matul ci la boole laal xalifa ak suñ Moussa Fall ak bu Seera Fall. jërëjëf. bi mu doonee Cheikh Fall Baye Góor ak bi mu doonee suñ Abdou Sakour matul ñetti weer. jërëjëf. tarka yi itam jërëjëf sant naa bu baax. sant nañu bàyyi si la bég nañ di la santaat bu baax tam. wax nag moom. di la ñaanal bu baax waaw. wax yonent la. jërëjëf. léeg-léeg nga ne ko naa wax ji de amul solo ma ni waxoo dëgg. am lu ñaaw am bàkkaar ko wax lu baax am jiw. wallaay ndeysaan. barab boo dem jàmm yellu fa nit fa wax lu baax. jërëjëf. jam barab boo dem barab ba yàqu nit fa wax lu ñaaw lu mu xamante ni xam xamuñu ko. billaay nan wax lu baax baalu noppi. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Tuubaa jaaraama maam Sarax Ba jërëjëf sëñ Mudu Lamin jërëjëf Baye la Baye Fall ñu di ko santaat bu baax mbokk yi doon jokkoo ak moom euh, depuis fële nga xam ci bërëb bu sell bi di euh, tubaa waaye tam mu mel ni rek gis ngeen seede yi mu indi waat ci nga xamante ni muy Baye Ndiaga Diop tabarkaala ñu di ko santaat bu baax waaye tam di ñaan suñu borom tam guddal fanam doole ko defal tawféex ak tay si rek na yaa defal la saxar dareen ci barke Serigne Touba Xaadim Rasul ci barke Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babu Mouridine jërëjëf Sylla ñu ngi lay santaat bu baax